waaw euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla dañ fi ñëwoon tey pour euh, euh, gestu daal liggéey bu ñu tàmbali ay weer ci ginnaaw ñu ngi dolliwaat di santaat yàlla parce que wax dëgg yàlla mbégte lañu lañ fi jëlee tey di gërëm di sant suñu partenaire technique yu ñuy gunge ci projet bi particulièrement structure bu ñuy woowee Carrefour médical nu ngeen ko xamee ba ñu tëjee centre dialyse bu nekkoon hôpital de Dantec ba tey daanaka suñu mbokk yi yàlla nattu ñu am insuffisance rénale ñu noonu def ay dialyse euh, ñu wax dëgg yàlla sonn nañu lool. kon euh, centre bi am nañ yaakaar fi ak ñetti weer askanu Dakar dinañ mën a commencer ñëw di euh, di fi traiter lii di lii di insuffisance rénale wante ñu ngi ñaan yàlla. Euh, yàlla na yàlla xeeb dolli yokkal ñu sutura lu ñuy ñaan mooy mën a ubbiwaat centre bu mel nii euh, jox ko askanu Grand Yoff ak askanu Parcelles Assainies su ci yàlla àndee tamit dañu fas yéene tamit dem Médina def beneen centre bu mel noonu pour population wu Dakar Plateau Médina ak commune euh, Fass Colobane Gueule Tapée fu ñu ko bëggee daaneel nag mooy baaxee askanu Ngor Wakam Yoff ak Cambérène centre de dialyse donc objectif bi mooy biir département de Dakar ñu mën fi am euh, ñeenti centre de dialyse parce que ñeenti départ ñeenti arrondissement ñoo fi am pour que euh, déjà askan bi mën ci gis benn seen bopp mais ensuite ñu bañ a surcharger centre yi di ñaan yàlla tamit euh, yéene bu ñu am ci centre yi mooy képp ku yàlla nattoo nga nga am insuffisance rénale nga soxla ay dialyse nga mën ko am ci lu ñuy woy gratuité loolu euh, fuñ nuñ ko fas yéene euh, defee mooy bu njëkk mooy sukkandiku ci budget wu mairie de Dakar bu ci tegu tamit mooy jéem a convoqué lu ñuy woy RSE RSE e mooy responsabilité sociétale d'entreprise daf fi am ay société yu bëri yu fi nekk di fi daan seen doole di fi euh, for xaalis bu am solo te lii di RSE d'habitude day nekk lu ñuy génne ci impôts yi donc dinañ fi identifier ay structures sàkku ci ñoom tamit ñu euh, ñu dugal seen loxo ci yéene bu ñu am euh, pour euh, askanu Dakar ci mbiru dialyse bu ci des tamit mooy dañu fas yéene tamit sensibiliser ay fondation ay fondation mais biir laat wax ci fondation dañ koy créer pour des raisons humanitaires et non pour des raisons fiscales loolu mooy fu ñu fas yéene jëlee xaalis bi au niveau du Sénégal bu ci des lii di bitim réew kooku moom dinañ ci def suñu kéem kattan ba yéene bu ñu am euh, ci askanu Dakar mooy euh, sargal doomu aadama mooy euh, yërëm doomu aadama mooy jàppale doomu aadama mooy gunge doomu aadama yàlla def ci sutura incha allah. niveau de travail fii d' avancement des yi ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax te am nañ yaakaar fi ak ñetti weer centre bi dina mën a commencer di démarrer ay activités te su ci yàlla àndee 40 lits moo fi nam moo fi am. donc su ñu defee euh, trois branchements par jour normalement centre bi noonu na mën a jël lu toll ci cent vingt personnes par jour donc euh, loolu ci suma xalaat bu gàtt am na solo te suñu yàlla yokkale sutura balaa mandat bi di jeex suñu euh, indaate yeneen ñetti centre yu mel nii daanaka mooy cent vingt yu ñuy multiplier par par quatre donc loolu di ngeen gis ne ni que presque presque 500 personnes dinañ leen mën a dialyser fii biir Dakar mais xam naa dina am ay nit yu may laaj fan la ñuy jëlee xaalis yi pour mu doon gratuité euh, lu doomu aadama euh, nam ma def su ci euh, àndee ak gëm yàlla ak wóolu yàlla ak pas-pas ak Pastef yàlla mën na ci def sutura ba yéene bi moom yàlla ma tëddee ko incha allah.